kon euh, ñu ngi leen di nuyu toute la presse euh, li taxoon ñu woleen mooy ne dañu nekk ci jamono yoo xam ne manipulation désinformation daf ci bari donc foog ñuy à chaque fois gindi suñu concitoyens dégg nañu sànq ay déclaration de Ousmane Sonko notamment ñuy expliquer ñoom li leen dal bu ngeen ko dégloo dem naa ne explication yi gudd na waaye bu ñu ko tënkee mooy ñoom ca seen biir xaw ma nag luñ ko doxalee ndax seeni mbir la ñoom waaye jàpp nañu ne seeni erreur rek ñoo xam ñoo ko teyoon wala teyuñu ko ñoom ñooy responsable loolu mooy premier enseignement bi ñuy tiré sénégalais yi war koo xam kon loolu li mu firnde mooy accusation yañ doon def contre l'administration loolu wane nañ ñoom si seen bopp ne l'administration n'a absolument rien a voir avec leur turpitude l'administration n'a fait que respecter la loi looloo indi nanguwuñu seen liste bi nga xam ne moom la ñu déposé ci Dakar def naa ne ñoom joxe nañ ci explication yu leer kon ils n'ont qu'à se prévaloir de leur propre turpitude xamoon nañu ne suñu administration c'est une administration compétente ki a organisé des élections dans toutes les circonstances ndax ñoom ba ñuy gañee fii bu yàggut c'était la même administration elle n'a pas changé elle a appliqué la loi kon il faut que sénégalais yi aussi ñu leen di wax la réalité des choses direction générale des élections administration nga fa waaye ñun ba ñuy dem di déposer en tant que benn Bokk Yaakaar fekk nañ fa société civile mu toog du ñoom rek ñoo fa def toog c'est une commission où la société civile est assise def naa ne loolu it lu sénégalais yi wala xam la kon leer na bu baax ci bopp ñépp ne administration n'a rien à voir seen yoon newul ci ay liste ñoom ñoo tong seen tong ñoo seet nag lañ ca bëggoon a def ba mu indi leen lii mu leen indi loolu il faut que mu leer bu baax a baax a baax euh, ci bopp ñépp moo taxoon ñu bëggoon vraiment àddu ci kàddu yooyu parce nag aussi c'est pas parce l'information maintenant c'est démocratisé tout le monde a accès aux réseaux sociaux que mën nañoo nax sénégalais yi sénégalais yi kenn mënu leen a nax ay ñu yeewu lañu ñu yor seen xel lañ waaye ñuy wax ak ñoom aussi daf ci am solo ad ad élection fii ñu toll nii administration daf koy administrer mais am nañu système boo xam ne ku ne def nañ ko de manière inclusive ba société civile toog ku ne jaar par le même processus Benno Bokk Yaakaar nag dafa jaar par le processus respecter la loi loi li mu wax te des associations de mouvements de femmes xeex ci les démocrates mooy dañu war a am des listes paritaires loolu la loi wax ku teggi loi nag mais mënuñ la koo nangul loolu aussi def naa ne ils apprendront leur leçon certainement pour la prochaine fois donc halte à cette manipulation bi ñu doon wax naan administration et cetera ak di tudd ku ne nous dénonçons d'ailleurs toutes ces c'est difficile sax à qualifier mais c'est des injures en direction de nos institutions kenn desul dégg ngeen leen institutions yi ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk ñu ngi fi depuis 1960 li ñu war a jox comme exemple suñu jeunesse bi mooy ñu respecter nos institutions ñu respecter la justice ñu respecter les forces de l'ordre ñu respecter la première institution du pays le président de la république donte sax xëy na du ngeen bokk xalaat ndax réew looloo indi Sénégal ba fi mu toll bu doon un pays stable dëkk boo xam ne xëy na suñu habitants yi bëriwuñu ndax set millions rek lañu waaye foo tudd Sénégal ci àddina ñu xàmmee ko ràññee ko ndax le respect bi nga xam ne ñun Sénégal sénégalais yi jox nañ ko suñu propre institution kon ñaawlu nañu pour des raisons politique et politiciennes ñuy yëkkati yu ñaaw di ko teg ci vraiment ces institutions la loolu dañu koy ñaawlu di appeler la jeunesse aussi ñu xam ne ñoom réew mi booy seet ñoom ñoo ci ëpp on les appelle à la responsabilité ñu bañ a topp wala ja dégg ces manipulations la ndax réew mi seen réew la tey ak ëllëg donc dañu war a ànd ak ñoom tabax ko dans le respect de la démocratie dans le respect des institutions ñu bañ a nangu ñu toog ñu leen di woo ci fitna bu ñu ko nangu ndax nit du nga doo dem tëju ca sa néeg defar say liste mu indil la njombe nga ne doomu jàmbur yi ñëw leen ci mbedd mi lu leen ci fekk nag seen problème lay doon nous appelons cette jeunesse à la responsabilité bu leen nangu benn politicien di leen dugal ci njombe boo xam ne bii ëllëg ak si biir fële lay taxaw di leen seetaan Sénégal ci ay sart la tëddu incha allahu rabbi dégg nañ nag bravade bu nekk li tubaab naan bravade mais incha allahu rabbi les élections se passeront comme elles se sont toujours passées dans de très bonnes conditions ñun Benno Bokk Yaakaar defe naa ne amul ku ñu mën a impressionné donc wax ju bëri jeeg waa fëgg dënn beeg ca urne ya lañ koy datte le 31 juillet ca urne ya donc looloo taxoon tey ñu bëggoon vraiment wooleen waxtaan aussi ak sénégalais yi wax leen ne dananu dem ci ay élections incha allah sans fitna parce que nag aussi force va rester à la loi force va rester à la loi nanu ko daan defee nit ñi dem wate yi ñibbi seen kër ci gagné gagné te am na ñu yaakaar ne Benno Bokk Yaakaar mooy gagné largement je vous remercie